salaamaaleykum euh, merci présidente may nuyu samay collègues yi di nuyu monsieur le ministre ak seeni collaborateurs euh, di wax ni rek euh, sama collègue bu fi wàcc léegi wax ne dama ngeen am problème mu communication jàpp naa ni nguur yu jeex yëpp loolu ñuy wax ne dañu am problème mu communication fii problème mu communication amu fi lu fi am rek mooy échec lu fi am mooy depuis douze ans làmbatu tâtonnement lu fi am mooy errement bricolage amateurisme cuune moom la ñuy woowee cuune clientélisme impuissance ak incompétence moom lañu gis ci secteur bi euh, ministère bi dama jàpp ni dañu yaakaar ni moom mooy annex ci biir gouvernement COJER wala jeunesse su Bennoo Bokk Yaakaar parce que noonu nañ ko jàppee chaque fois ñu fay jël seen profil politique moo tax ñu jël leen du seen xam-xam du seen compétence du seen expertise du seen expérience donc ministère bu am solo la parce que jeunesse entrepreneuriat emploi mais damaa yaakaar ni ñu ngi koy dénk day xaw a diis torop si ñoom ba résultat yi ñu si soxla duñ ko mën a am mais mënuñu ne échec bi rek c'est imputable au ministre mais c'est imputable d'abord à la koo xam ne mooy définir politique bi parce que soo amul politique bu baax mooy président de la république moo koy définir à travers le PSE politique de jeunesse bu fa nekk baaxul donc loo ko munti mettre en œuvre mais mënul baax mënul sotti mënul dox donc lu fi nekk mooy ni constaté nañu après douze ans l'échec patent l'échec certifié du président Macky Sall dans sa politique de jeunesse te lu koy firndeel mooy jeunes yi nga xam ne ñu ne état bi day am dañuy produire en deux mille vingt quatre pétrole ak gaz nit ñi war a am yaakaar mais les jeunes sont dans le désespoir benn solution na ñu gis génn dëkk bi ñu mun a jaar ci désert bi jaar ci désert bi ñu mun a jaaree Nicaragua jaaree Nicaragua ñu jaar ñu mën a jaar ci géej gi jaar ci géej gi loolu day wane ni c'est un symbole fort ku ko mënul nag déchiffrer ku ko mënul liir nekk fii di wax ay waxu neexalaate nekk fii di wax ay waxu en tout cas faire de de la flatterie de la flagornerie ou de la laudation da ngay yaakaar ne sa bopp ngay ndax waaye jeune yi kenn mënu leen ndax euh, lu may wax ci politisation wu secteur bi gis nañ ni quatre inspecteurs yoo xam ne ay chefs de service régional nañ relever nga leen de leur fonction parce que juste jàpp nga ni dañu am position politique bu wuteek yow ce qui est de l'intolérance gis nañu également yaa ngi jël ay milliards ak ay milliards pendant que les jeunes yoo xam ne amuñu liggéey amuñu financement ñoo ngi dans le désespoir nga ne da nga koy investir dans des MJC alors que CEDEPS yaa ngi nii dans un état lamentable leneen li gis nañ ni également que structure bu mel ni Prodac malheureusement ñun Sédhiou Prodac xam nañ ko bu baax parce que la DAC de CFA fa la nekk le DAC de CFA fa la nekk on nous avait promis des milliers d'emplois où sont ces milliers d'emplois où sont ces milliers d'emplois il y jël jiiroo ko 36 milliards de francs CFA jël jiiroo ko pàccoo ko lekk ko ah soo demee Prodac actuellement doo fa fekk dara on vous a délibéré 2000 hectares si 2000 hectares yi bëgg naa xam ñaata hectares ngeen si aménagé daaw ñëwoon ngeen fi ngeen di on va on va aménager trois unités autonomes dexploitation exploitation unité d' autonome d' exploitation 15 hectares la foo leen ci toll sur 2000 hectares dama bëgg xam ñaata hectares ngeen si aménagé l' électrification le transport les pistes yooyu yëpp bëgg naa ngeen wax ci ay chiffres yu leer nañ service départemental jeunesse su Sédhiou dama dafa mel ni bëggoo leen jeunesse su Sédhiou parce que budget moo ngi jóge ci vingt deux virgule millions sept cent mille ngeen indi ko quinze millions bee passé service départemental de l'urbanisme zéro franc ngeen ko jox donc ça veut dire que vous sanctionnez la jeunesse de Sédhiou bu sanctionnez les Sédhiouois à travers ce budget là et il faut corriger cela leneen li mooy wax ni rek vous avez échoué jeunesse bi toppatuñ leen vous êtes impopulaire léegi lu leen dese c'est la répression après le xëyu ndaw ñi c'est la xeex ndaw ñi tëj ay réseaux sociaux yi euh, fermer TikTok tere jakarta yi ñu daw lép lu ngeen daf rek c'est contre la jeunesse parce que jàpp ngeen ni jeunesse bee àndul ak seen politique mais malheureusement en 2024 la jeunesse va vous déboulonner on va vous amener à la retraite dans l'opposition ñu indi ñu fi gën a compétent je vous remercie chers collègues